nuyu sénégalais yëpp man jaratul mooy présenté kenn sama man la Zoké bi yal min bi doomu Siteu doomu Géejawaay bi waaw maa ngi leen di di leen sant di leen gërëm di nuyu ñi teew ñëpp di nuyu aw Baldé ci li mu def moo girif ndax bu ko neexoon mu xool ñeneen mais def ñoo bëgg a jàppale mu chaque jour dañuy dindi stress ñun ñu tëdd ci lal hôpital yi dañ leen di dugal ci kaso yi ñu dind seen lépp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu sama adversaire bi comme nee na moom moo lekk avance waaw sa bi moo lekk avance moom mooy Jogomaay dawul xare dégg nga li Ama léegi nee na njëkk dafa nekk ci lëmb jamono xale ko Fatou mi taxaw loolu wax ko na boo xoolee moom moom mujjee jël sama avance sama avance yooyu ma doon tëkk yëpp ba leen Ama Baldé contacté ñi dañoo ne dañoo feebar Nogaye Kara alias Grand Dakar bi buux moom moo jël ne man du ma dërëm du ma ñebbe ba mu ñëwee tiim kii du dara ñeexu nen la awo déggoo ma kii du dërëm ñeexu nen la xool nga ko nga noo xool nga ko lu may ragal ci moom ki maa ko loon laaj ko un mètre soixante seize ëpp ko rallonge du maag moom sax déggoo ma ne kii mbootu duus bu làmp bi tàqee day daw déggoo ma tiitaru mbóot safut baygon man lu ma jaaxal lu ñuy wax dagg sa yaram ba tey musuñu seen bopp si àdduna musuñu dagg seen bopp dina am dagg sa yaram rek gisuma ko naaj waaye ah, moom dina naaj de non man tatouage ma man tatouage man dama man dama yàgg entraîné man doobu nekk si lii taxuma toog fii nii wax dama entraîné xam ni ñuy dóoree xam ni ñuy gaañee diggante ak Joal la dëkk ragal dëkk fa. barke yeneen man man fépp lay laay dund. dund ma dagg yaram beneen level laa indi. xam nga rek nekk si beneen. féetewal wax ji di wax rek féetewal wax ji di wax. du gis nga filaawo géejawaay niñ ko daggee gandu si géejawaay si dama koy lekk dinaa mas ganaar dinaa sool lapin dinaa app avant géej gi lekk gandu si trois science laay def matin midi soir barki a ma koy lekk ah, kii maa ko a ñemee lu métti comme bambara bi too laay lekk déggoo ma de too koo laay lekk ñun cere ñun cere la ñuy lekk cere waa joie ñun Fadio lañ dëkk. combat bi sama bakkan laa ciy teg barki yàlla Siteu ay million la may jox Balla Gaye barki borom daaru damay dem ba Bakaro ci ko ni affaire seeti samay maam barki yàlla ma lay lekk. kii ñemewu ma kii ñemewu ma kii ñemewu ma ah, barki yàlla doo dërëm. Dóor dërëm o moto tuus nga bu lamb bi tàqee nga daw merci ci taru nguur nga moor merci bay goo nga kande ku kande ku kande new da lekk géej bay goo nga da ngeen xaar yow caméra yi nga teg moo tax nga commencé sax di wax caméra yi nga tiim moo tax nga commencé di wax waaw ah, baax na baax na ba ma jàpp la yow del wax rek del wax rek gandu si laay jël laa woo géejawaay yi ñu dagg lépp laay lekk naa soo ah, lappee maa kanaar yéeg dim ba amee ko doon nekk lépp lekk léegi léegi mu nekk combat bi léegi man du ma def mystique xam nga li ma gisaat open press ma ne ku gëmul xaar ko fuufa xaar ko fuufa ne la xuuf yow dama lay fuuf. baax na baax na ba ma jàpp la yow del wax rek. del bara ji rek di sàqam paquet bu gaaw waaye moom da ngeen parewul parce que nañ gëm mystique ñu gëmul mystique. yow bu ma la tëralee ba pare xale yu jigéen yi nekk ci tiktok bi di mbaraju sama génération yi. ak woo boobu nekk Batamba ñoom ñëpp indil leen ma say mbokk ak may seetaan dama leen di tëral benn. doo xam nga génn si avance bi ba pare. bi bi. yow nee naa la dama lay def plat de résistance entre sur dessert dama lay coob ci ay seconde yow dama baax rek dama fi nekkee di wax dama lay may bës Angleterre ak Angleterre duñu benn waaw maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di remercier presse bi nga xam ne ñëw nañ tey man maa organisé euh, combat kickboxing bi entre Pawlish ak euh, Ouzin organiser ko pour euh, Ndiku ak Fatou ñoom nag dañoo nekk ñoo xam ne yàgg nañ maa xamet ñoom lii laa leen mën a defal Euh, ma waxoon ne ne aussi dañoo nekk ci période boo xam ne nit yi dañoo stressé ñoom dañoo bégal gaa yi ndax euh, da ci dafa bokk ci affaire u sénégalais reetaan comique donc voilà ma organiser ko laaj sama frère Grif euh, mu accompagner ma ci sama sœur Zeyna bi ma ko woowee aussi wax ko ne dama bëggoon def signature de contrat wu kii Pawlish ak Cousin mu ne ma avec plaisir accès bi mu may ma ko gratuitement ma koy remercier madame lay merci beaucoup euh, Abindou donc voilà gars yi jërëjëf. Ah projet bi ci projet euh, nag euh, dama jàpp ne rek nit boo yàggee ak moom danga koy dimbali chaque jour may la jën jëndal la gaal won la nu ñu nappee moo ko gën dama yàgg di génnee di leen jox ma ne pourquoi pas bi pas ma tëggal leen combat. sponsor yi espéré maa leen ci woo ñu wuyu si bu ko defee Pawlish xam ngeen ne ne yàggul dara papa ay seex la yor yor na terrain war na koo mun a tabax yëkkati këram kii ak tamit am na terrain ci lu ma leer war na koo mun a tabax am këram loyer wàcc ko dimbali famille wam ñu nekk ay nit yoo xam ne dañoo am jom di dimbali seen bopp et di dimbali seen bopp ñu ngi dimbali seen njaboot kii ku ko xam-xam ne ne ñetti responsabilité la am yaayam bi nekk mbuur maamam ak moom jabaram ak ñaari doomam kii tamit pareil famille wam da leen di taxaw di taxawu boppam kii noonu kii noonu ma ne union fait la force nit nag di nga toll foo xam ne ne nii il faut nga exploiter li nga xam ne loolu la la yàlla may comme ñoom nag reetaan loo nit la leen yàlla may te nit yi bëgg nañ leen pourquoi pas ñu defal leen loo xam ne ne après dinañ ci gis seen bopp mun a accomplir seen i seen i seen i seen i rêve ndax ku ci nekk ci ñun rek gëm naa ni am nga ay projet waaye am nga ay rêve aussi euh, am na yeneen surprise yoo xam ne bugguma ko wax. waaw ñoom ñoo gën a fës mais am na yeneen. ndiku dama ko yàgg seetaan mu di ma reetaan loo aussi ma bëgg a kase benn image bu nit yi am ci ndiku jàpp nañ ne xaw ma nuñ koy woowee sax euh, gangs la mais ndiku elle est de sensibilité ah des fois ñun bu ñu véhiculer au fond du loolu moo nekk ci ñun ci dafa. yërmande kese lal xol bi te nit ku baax la ma bëgg à travers li may organiser aussi mu wone beneen facette tam euh, bu bokkut ak li sénégalais yi yaakaar ak foog ci moom date bi nag euh, dama koy bàyyi ba après waaw lépp dañ ciy defagum ko alors euh, ki gagné ci góor yi combat bu mag bi parce que ñoom ñaar la ñoom ñooy combat bu mag bi di nga am trois millions te ki ñàkk combat bi un million cent ci jigéen yi un million ki ñàkk am cinq cent mille ak sponsor yi nga xam ne ne nii ñoo ngi ma ciy gunge te vraiment préfère rester euh, dans l'ombre voilà non du risque parce que doo jog jóg rek organiser dara te waxtaanoo at nit ba mu wax la ne pare na war na koo mën a mën Ouzin commencé na ay entraînement am yàgg na defa def na une semaine moo ngi boxe te coach la am vraiment koo xam ne expérimenté di ko jàngal e mu ngi ci et Pawlish moom bi ma ko laajtee daf ma ne dama ciy dem ba jeex kii moom waxatuma ko keneen ki ci topp e li ma wax daf ma reetaan loo sax daf ma ne ndiku dafa yàgg yóbbu fitu xale yu jigéen ñi dinaa ko won ne nag am na beneen jàmbaar bu mel ni moom bu nekk ci dëkk bi muy faatu voilà mais bu nekkul loolu la leneen lay nekk man damay liggéey mais ci kaw may liggéey euh, du ma bëgg a parce que la ma sekk ak ñoom ñoom laa ko sekkal waaye nag dama am famille am ay njaboot te baax naa lool waaye mënuma dëkk ci di leen jox lu dëgg waaye war naa leen mën a ubbil ouverture porte boo xam ne ne mën nañ cee gis seen bopp ndax leer na ma leer yàlla ne ñiy seetaan li tey dina am ñi nga xam ne dinañ ci porté wu taxawu leen jàppale leen ndax xam nga ne ku ma xam man xam ne ne yor naa kër yoon naa suuf yoon naa terrain mais ñoom ay terrain rek la ñu yor mënaguñu yëkkati brique te bëgg naa ñu yëkkati brique parce que samay nit lañ waaw loolu xam nga bu doon damay commerce si ñoom dina demee neneen dul nii mais loo xam ne sur contrat laa ko def loo xam ne damay jël Griff Diouf jiital ko ci ne ko damay yàgg ànd ak yow euh, Touba ci benn maire ñu récolter xaalis bi mu jaar sa loxo nga doxalee ko comme ni nga ko war a doxalee man bëgguma dara jaar ci sama loxo Griff lëpp luy trésorerie lépp loo xam ne ne nii gérance la Griff moo koy gérer du man parce que weex naa dunku Euh, mais li waru leen jaaxal dama jàpp ne question bu malsaine la parce que ñoom ku ci nekk tey boo jëlee kaddu wax fa ma jaar ak yow man maa leen di wax dama sekkat ñoom ñun noppi bañ ko wax mais nag vu que vous me poussez à parler tey jàpp naa ne bu ma yëkkatee benn trois cent mètres carrés jox ko Pawlish war naa ko mun a jàppalee xool nan la yëkkatee terrain bi mu jóg loyer yaayam surtout wàcc ko ndax ngeen koy gisee nii dafa jël yaayam def ko ci teg ko ci mbuur kër di fay loyer boobu war a fay loyer bi mu dëkk ak ja eh, ak jabaram ak ay doomam yooyu ay charge yu bëri la n'est-ce pas maa ngi lay fay ba nga xam ne parce que moom mooy suñu eh, sport national donc am ay am na ñoo xam ne suñu xam-xam bien sûr parce que avant ngay def benn programme il faut que nga consulter ñi nga xam ne am nañ ci expérience yàgg nañ koo def nga laaj leen seen xalaat aussi laajte leen li ñu bëgg exactement daanaka man sax boo leen bëggee dëgg-dëgg idée bi am naa ko parce que c'est normal nit kuy xalaat la mais ki tax ma gën ko dëggal mooy ñaar ñi ñoom ñoo ma sonn ñoom ñoom ma sonal topp ci samay nopp ñun tamit bëgg nañ lii bëgg nañ lii bëgg nañ laa bëgg nañ laa jàppale ñu yaa ñu war a jàppale yow lañu am donc bu dee lii su ma ko defee ñoom dinañ ci gis seen bopp ba jàppale seen bopp dama koy def quitte à ce que nag ma dégg ci lu nekk ndax yàgg naa dégg ci ñoom lu nekk ah ñoom dañu sol sama yére am nañ ko ci man kii bu ñëwee sama kër day yéeg sama kaw lal am na ko ci man dama ko bëgg trop donc c'est très normal tey ma ma taxawu leen defal leen lii bégal ci jaaraale ci bégal ci sénégal yi dañoo stressé wu ah le pays va très mal ah. nañ ko nangu ça va très mal avec le nouveau gouvernement changement de régime bi le temps que les choses s'activent ah dañoo xaw a solo ñëpp et pourquoi pas ñu wut ñoo xam ne dañu reetaan lo man bi ma ko waxee Médoune mii sama grand la xam nga ne si genre yi du ci ñëw Médoune mais bi ma ko ko waxee mu ngi woon ci kaw la lalam Médoune daaree ba sonn ne ma may yow doo nit man damay ñëw te bi muy ñëw du cent franc bu ma laajte waaye ku xam Médoune xam vie yu mu am ci snap buy déplacé wu lu mu bon bon bon xanaa di nga xëcc cinq cent mille jox ko mais zéro franc ndax da cee kontaan Zeyna Bamba pare keneen ak keneen pare yéen ñii tey ngeen nekk ay presse amul kenn kuñ ci déplacé jox la sa yéen a ñëwal seen bopp kon idée bi neex na leen loolu laa jàpp. d'accord comme ni euh, li nga xam euh, euh, ne moom bi nekk xam nga structure bi taxawal naa ko yàgg na amuma benn fit bind Baldouz Event bu fekkee jaaruma ci notaire dama jaar ci notaire. mais Sénégal j'ai pas besoin de me justifier que am naa société wala maa ngi def lii loolu man la concerné yaakaar naa ne bu ma leen rédiger wul woon ay contrat duñ ci gis sama mais je suis obligé bàyyi ci sama sama trou société ou sinon société bi mënoon naa dund kenn du ko xam buzz buzz je dirais pas buzz parce que buzz amul solo ci li nga ciy def moo am solo donc jàpp ma ne lii buzz la parce que ñii ay nitu bruit la soxlawuñ ma bu ñu taalee seen téléphone yi teg rek def nañ julli ah au passage ma si remercier Bijou jagana mi nga xam ne bi ma ko woowee wax ko ko aussi daaree ba sonn ne ma anniversaire u RT 2STV euh, mooy waaj a ñëw dinaa leen defal spécial plateau moom it moo ma ciy gunge moom ma ciy dooleel donc je tenais à à le remercier man euh, gouvernement bi fi nekk faw mu bàyyi ma xel parce que qu'on le veuille ou pas Awa Baldé n'est plus n'est plus à présenter madame boo demee Google boo tapee Awa Baldé rek day génn quitte à nag à savoir lan moo ci nekk mais j'existe déjà et j'ai pas besoin de de gouvernement pour exister parce que j'ai existé avant ce gouvernement mais c'est des jeunes c'est des c'est des gens ambitieux ma leen di ñaanal yàlla yan bi oyof seen kaw mais duma leen ci sax wóor daaw leen question bëri nag parce que dañuy gaaw ah. waaw na na temps bi gaaw xam nga nit boo jógee pour def dara ñaan nga yàlla mu nekk dans le continuité et même bu nekkul dans le continuité nga marqué ci say euh, say say say empreinte. j'espère que de tout cœur euh, événement bi dina jaar yoon sénégalais yi dinañ kontaan dinañ reetaan dinañ reetaan comme man ni ma ci reetaanee ba ni c'est-à-dire <laughs> ba nii dama sama gestoo ndiku <laughs> maa ngi ciy ree dama xaw a immature nag euh, daa bokk ci man bu leen ma ko jàppee donc voilà les amis bien sûr bien sûr euh, merci alors première question mooy euh, lan moo la initié à ce xalaat nekk promotrice unboxing lan moo la nga def ko benn ñaareel bi mooy euh, naka nga def ba gisale contrat yi parce que gisuma ci benn yoon benn sponsor boo xamante ne nga àndal ci yaa ngi imaginé nga xalaat sponsor yi nga xamante ne war nga leen a a mën a bien sa activité nga war euh, bu ma ci kenn gungewul sax ma gunge ci sama bopp ah, parce que damaa gëm sama bopp non du question yor yàllaa yor mais mooy joxe mooy séddale ah nest man sama yéene rek laa am te yàlla na ko yàlla suñu borom moo donc voilà mais du du question yor te dama dëkk ci dëkk bi bokk ci dëkk bi yàgga def lu baax ci dëkk bi nit am programme am woo ma ma déplacé wu gëm naa ne programme bi ku ma ci woo di ma fekk si ndax nit yàgg na maa woo ci ay yëfam ma dem ci voilà. Euh, ah duma promotrice parce que ah, waaw waaw d'accord ok mais am naa nee naa leen griffe moo ngi nii anamu sax xam naa dafa daw res ah. waaye bokk na ci ñu joxe idée yi ndax man ni ma immaturé noonu la immaturé donc euh, voilà euh, pourquoi pas il faut essayer on n'a jamais fini d'essayer man dama gëm sama bopp jóg naa taxaw fii euh, ne influenceuse la accidentellement bien évidemment ma innové andi sama touche ci millier influence bi di sol samay talon maquillage yu te wane produit mu dox mu nekk lu ma neex mooy andi naa tey benn touche ba gis samay moroomu jigéen yoo xam ne ne ñoo ngi def comme man alors que avant ñu ko doon def donc pourquoi pas continuer rek tant que daal ñoo ngi dund man dama gëm ne ne liggéey am ay ambition di innover dafa bokk ci loo xam ne dalay jëmal kanam ci laa nekk combat yu mag yi nga xamante ne pourquoi pas parce que nag samay xarit samay frère ñoo ngi ci te ku ma ci woo rek gëm naa ne di ma ci fekk si parce que nag ay relation yu baax laa amat ñoo pourquoi pas c'est bon ah ma leen di jaajëfal merci